ndax xam ngeen bu def sunu borom tabaraka wa taala àggale eh, soreetul ma bëgg a fàttali bala ñoo dugg ci biir bind bi ñaari ponk yi nga xam ne mooy ponk yi gépp jaamu yàlla boo xam ne nitam koy def gépp jaamu yàlla bu ab jullit def dafa am ñaari ponk yoo xam ne su dajewul du wér kon dana rafet gépp jaamu yàlla boo xam ne na nga koy waxtaane ñu jiital ñaari ponk yooyu door a tàmbali ponk bi ci jëkk mooy an yakuna al amalu xaalisan lillah mooy jëf ja sell ngir yàlla yàlla rek tax ñaareel ba an yakuna sawaban ala sunna mooy jëf ja nekk jëf ji tegu ci yoon jëf ji tegu ci yoon mooy ji tegu ci sunna imaam bu mag ñi ko ñu wax al fudayl ibnu iyaad di jàngee waxi sunu borom tabaraka wa taala li yabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla wax ne daf leen di natt foofu borom kan moo ci gën a rafet jëf mu ne loolu mooy lan mu ne mooy axlafuhu wa aswabu mooy ba ci gën a fel gën caa jub ña toog nag moom daal koy laaj ne ko luy loolu mu ne leen jëf de bu fekkee dafa sell ngir yàlla yàlla doon nga tax ko jub waaye nag jaarut te yoon wam war a jaar jubut jëf jooju nee na yàlla du ko nangu mu ni jëf ja bu ko jëfee ci digg mu jaar ci yoonam war a jaar ci jub te fekk sellal lalu ko ba tey yàlla du ko nangu mu ne kon ñaar yooyu dañuy daje yàlla kese li tax mu jub aw ci yoon wa war a jaar tegu ca mu ne nag lu sell mu ne wal xaalis al yakuna lillah lu sell mooy yàlla kese kese kese tax nga def wutoo ci tur wutoo ndam wutoo ci ñu ne di way wutuwu ci ñu ne di ragal yàlla want rek sa diggante sa borom yow daal yëg nga ne ab jaam nga yàlla moo la sant lii nga def ko mu ne wa sawaabu an yakuna ala sunna ngir mu jub nag mooy mu tegu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamu yàlla gi ngay def nga jiima fexe ba xam yonent bi ñu la yónni woon ci yow yebal ko mu di la leeralal jaamu yàlla boobu nga fexe ba xam lu mu doon defe nga defe noonu kon ñaari ponk yooyu dana rafet ci képp kuy dugg ci ak jaamu yàlla nga euh, laltaayoo ko door a xam yi nga xam ne nag moom lañ fas yéene waxtaane insha allahu taala moo di yii di ci njëkk mooy farata di koor nekk farata di ci tegu mooy lenn ci yi sabab yi nga xam ne moo tax suñu borom tabaraka wa taala waral koor ak sax kañ lañ tax ne nit ñi dañoo war a woor ak ndax jullit yëpp mënees na leen a benn rek yi warandoo ñoom yëpp ci àdduna di wareendoo juróomeelu tomb ba mooy xaaji doomu aadama yi maanaam jullit yi ci kanam koor ñaata bi yi nga xam ne dafay yàq koor juróom-ñaareel bi ay régal yoo xam ne dafa aju ci yooyu di yàq koor niñ ko ni ko charia euh, réglementé juróom-ñetteel bi lenn ci pegg yi koor juróom-ñeenteel bi julli naafil la fukkeel ba fukki fan yu mujj ci weeru koor fukkeel ba ak benn lu aju ci koor fukkeel ba ak ñaar lu aju ci ak jitu ayib ak fukkeel ba ak ñett suñ ko waxtu may incha allah ñu tudd lenn ci ay njuumte yoo xam ne dana di dal ñi nga xam ne ñooy woor ngir ñu laaj ci kon ñu tàmbalee ci farata bi nga xam ne moom la weeru koor nekk farat koor muy woor weer wi ñu tudd ramadan farata la boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala farataaloon na ci xeet yi jiitu l'islam comme ni ko borom la waxee taala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yéen ñii gëm te topp Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ne xam leen ne farataal nañ ci yéen koor ni ñu ko farataale woon ci xeet yeneen jiitu woon lañ ci dugg loolu mooy fexe ba ngeen ragal yàlla loolu danañ ci jël suñu borom tabaraka wa taala mu leeral ne weer woowu ñu war a woor moo di weer wi ñuy tuddee weeru koor mu ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra falyaqum kon foofu la suñu borom tabaraka wa taala warale ne weer woowu mooy weeru koor <coughs> bi nga xam ne ci la alquran wàcc di gindi ci doomu aadama yi di tàqale dëgg ak la dul dëgg mu ne kon weer woowu ku ko ci gis na woor kon loolu mooy wéral ne kon weer woor nekk weer wi ci ramadan kon mooy woor wi weer wi war a woor mu leeral moom borom bi tabaraka wa <coughs> waxtu bi nga xam ne moom la ñuy woor mu di la tàmbalee ba fajar ci fenke ba fajar di jot ba cero jant ci topp diggante boobu ci la ñuy war a bàyyee lépp loo xam ne dañ koo tere ku woor du lekk du naan du tëy du def lenn loo xam ne dañ ko koo tere ci biir koom moo tax borom bi wax ne wa kulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajr summa atimmu siyaama ila alleyl dañ ngeen a lekk dañ ngeen a naan dañ ngeen a def yeneen ba keroog fajar bi jot yonente bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye ba ñëw Madina jóge Màkka ca atum ñaareel ma jala suñu borom tabaraka wa taala farataal ko wax ci jullit bi la jiitu loola nekkul woon farata ci ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon woor na juróom-ñeenti at door a wuy ji boromam tabaraka wa taala koor nag biñ ko farataalee dafa am ñaari jaar-jaar yu mu jaar am na ñaari étape yu mu jaar ba ci jëkk moo di li mu door a wàcc dañ leen a tànnaloon su la neexee nga woor su la neexee it nga bañ a woor waaye da ngay lene maanaam da ngay jox miskin euh, ci anam ba nga xam ne noonu lañ ko ko tànnee beneen état nag farataal koor nga xam ne sañatoo def nenn lu dul rek woor moo tax saxaabi bu mag ci àndandoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ñuy wax Salama ibn al Akwa mu ne lamma nazalat wa ala alladina yutiqunahu fidyatun taamu miskin aaya boobu mu ne bi mu wàccee képp koo xam ne bëggoon naa dog nee na su ko neexee day dog waaye su ko defee nag day jotu day jotu day nene waaye neen ba beneen aaya ba ca tegu ba mu wàccee nag booba la ko nasaxal muy faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar mu ne booba lañu daal di nataxal ne kum neex nga woor kum neex nga nga leele kon weer woor weeru koor tax na ci alquran ne farata la tax na ci sunna ne farata la jullit yëpp itam def nañ li ñu tuddee ijmaa muy àndandoo d'accord ci ne woor weeru koor farata la kon moo tax borom xam-xam yi ñu ne woor bokk na ci li maalum ñu ne diine bi darura maalum la diine bi daroor ku jóg taxaw yàgg ne yàlla farataalu weeru koor ñu ne kooka dafay daal di tudd li ñuy wax murtad dafay nekk koo xam ne dafa génn diine diine lislaam bokk na ci nag xarañee suñu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne moo tax mu farataal koor c'est-à-dire njëriñ yu bëri yi mu yor bokk na ci ne koor ab jaaruwaay la boo xam ne day daal di yóbbu nit ci ragal yàlla moo tax borom bi daal di wax ne laallakum tattaquun kutiba alaykum asiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun koor dafa bokk ci nga xam ne day jëmale jullit bi ci ak ragal yàlla loolu ku xam koor ba mu dugg ci soxal kenn ku nekk loolu xam nga day jëmale jullit bi tàggat ko ci mu mën a waxtu yi ko borom bi tabaraka wa taala tere koor moomu dafa doon loo xam ne diggante nit ki ak boroomam tabaraka wa taala képp moo ko mën a xam kenn mënut a contrôler doomu aadama ci loo xam nga war na wala wóor waaye ginnaaw moom bu xëyee dana ñàkk a war ba jant dana ñàkk a lekk ñàkk a jëfandikoo ay bànneexam yi mu tàmmoon ba jant so te loolu digganteem ak boroomam dong la kon kooku ak tàggat la koo xam ne mën naa indi jullit bi ci lu gaaw a gaaw ak ragal yàlla ndax bu ko neexoon mën naa nëbbu lekk wala mu nëbbu naan wala mu nëbbu def leneen loo xam ne moo yàlla dong moo ko kon kooku mooy wane ne nit taxul mu def ko ci ragal suñu borom tabaraka wa taala ñaareel ba moo di koor bokk na ci sabab yi waral suñu borom tabaraka wa taala jéggle bakkaar yéen ni kenn ku nekk am nga ay bakkaar ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe bépp doomu aadama nee na dafay juum dafay juum ñi gën ci ñi juum nag mooy ñoo xam ne suñu juumee dañuy daal di jéglu koor nag dafa bokk ci yi nga xam ne dafay waral ak njéggal bu tukkee ci sunu borom tabaraka wa taala Abu Hurayra radiallahu taala anhu jële na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne man saama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi képp koo xam ne woor na weeru koor nee na ngir gëm yàlla tax mu def ko ngir fàttu sa yàlla tax mu def ko nee na kooku jéggal nañ ko bàkkaaram bi weesu woon kon kooku lu am solo la muy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi ñetteel ba bokk na ci ay ngëneelam ne yool bi nga xam ne mooy yoolu koor amul ab lim amul ab lim ñëw na ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadisu alqudsi bu mu jëlee ci borom bi moom yàlla mu ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawm doomu aadama li muy jëf ci ay jëf lépp moom moo ko moom ba mu des koor fa innahu lii wa ana ajzi bi mu ne koor moom man maa ko moom ki ko doon defit man maa koy fayal sama bopp lu ma jox kenn sax mu di ko fay waaye man man yàlla maa tafeel sama bopp ndax jaamu yàlla bu nekk mën na cee dugg ba mu des jaamu yàlla koor kooku njaxas mënu ak boromam kett la kenn mënu cee xam leneen beneen riwaaya bi liggéeyam lañ koy fayee dañ koy ful benn bu nekk ñu tey ko ci fukk ba muy àgg ci benn bu nekk mat juróom-ñaar téeméer mën naa dem ba àgg ci loolu mu ne waaye koor nag moo ëpp yooyu mu ne koor moo ëpp yooyu ndax kooku man maa ko moom man yàlla ndax doomu aadama bi mi ngi bàyyi ak lekkam bàyyi ak naanam bàyyi bànneexam ngir man kon kooku mën naa ko seetoo ko lañ ko fekk kenn xamul lu mu doon digganteem ak boroomam tabaraka wa taala rek ñeenteel bi moo di ne koor junnatu min al seytaan fakk la boo xam ne day dox diggante nit ki ak seytaane seytaane day ab noon bu bari ay pexe boo xam ne day yàqal doomu aadama te loolu rek it mooy liggéeyam mooy jubluwaayam kon koor dafay dox diggante nit ki ak seytaane ak lépp loo xam ne ay jaaxaan la ak ay po yoo xam ne amul njariñ ëllëg moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne koor day pakk la maanaam tem lu ñuy tegoo la su fekkee sa bisu koor ñëw na ba nga woor nee na bul la nit saaga woon tax wala mu la na nga ne ko man day xamal ne ku woor laa dama woor na loolu rek doon ko toog xale bi xabit ne seytaane yi nga xam ne ñooy yi gën a mën a yàqal doomu aadama bu koor ñëwee dañ leen di génn bu dul ñu mën a yàq kon koor pakk la buy dox diggante nit ki ak seytaane te koor tax même bu dee ci wàllu waaye ñàkk a lekk ñàkk a naan kooku day xatal dawukaayu deret bi ci biir yaramu doomu aadama te loolu xatee njaxas njaxas saytaane yi nga xam ne mooy yëngal wàllu bànneex yooyu ci boppam day xat ndax saytaane day daw comme ni deret di dawee ci biir yaramu doomu aadama noonu la saytaane di dawee ci biir aw yaramam di ko yàqal dawukaay yooyu nag su xatee xat ci saytaane saytaane duutu mën a yàqal doomu aadama bokk na ci njëriñ yi itam ñi nga xam ne koor dana ko jëriñ moo di ñi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf leen a jox ak woomal koor dana leen dimbali ba ñu fàttaliku seen mbokk yi nga xam ne dañoo néewal dañoo néewle ndaxte suñ yendoo xiif yendoo mar yan ci coono ba ngoon ñoom ñu woomal nga xam ne ci xéewal lañ daan xëy di ci doon danañ yëg ne ñoom kat li ñu yendoo am na ñoo xam ne daanaka moom lañ xaw a dëkkee ci seenu dund su ko loolu mën naa nooyal seeni xol ndaxte lee ñu tàllal seen loxo ñi nga xam ne ñooy ñi aajowoo dimbali leen taxaw leen kon kooku ci njëriñ yi xam ne koor tax na suñu borom tabaraka wa taala faratal ko ci loolu ci la na ci itam yi tax suñu borom tabaraka wa taala faratal ko tàggat jullit bi doon mën a régler bakkanam xam ngeen ne bakkanu doomu aadama luy rëcc la luy la fu ko su fekkee ne jéemut a yar boppam ci saa bu ko bëggee téye man koo téye kon kooku xamul ci lu mu jëm ku nekk lu ne mën na caa dugg nekk mën na koo def wante su fekkee ne yàlla dogal na mu am weer woo xam ne saa bu ñëwee kenn ku nekk na nga tàggat sa bopp te ñu gënoon a bëgg nga xëy réglé ko lu mat fukki waxtu yoo xam ne da nga koy téye du jëm fenn ba waxtu wa kon kooku ba ngoon jot nga def ko ba weer wa jeex kon kooku ak tàggat la ngir bu ëllëgee soo bëggee ne bakkan bi taxawal waroo jàll ci nangam nangam suñu borom da koo tere nangam dafa xaraam bu boobaa da nga mën a not bakkan bi dal ko mën a téye bokk na ci it nag njëriñ yi nga xam ne eh, koor dana ko jëriñ waaw ñu waxaale ko ci mooy njëriñ yi wér gi yaram yi nga xam ne dana ko findi ñëpp ñoo xam ne dañuy gëstu ci wàllu xam-xam lu jëm ci wàllu santé xam nañ ne koor ci boppam ci lii indi njëriñ lay bokk ndax machine bi nga xam ne li muy liggéeyee mooy reefal lekk gi war naa am jamono yoo xam ne day noppalu te yëg nañ ne koor dong moo mën a tax mu noppalu tooy tooy yu bari yi nekk ci yaram yi di indi feebar yeeg toj yeeg bopp yi nekk yeeg yëpp yëfaan yooyu ñàkk lekk ci boppam biir yaram wa pendi tooy tooy yooyee dañ loolu ci li ko gën a gaaw a mën a faj ci la bokk am na genn waay joo xam ne ci njëriñ yu wér yooyu joxe ci misaal boo xam ne dafa yoroon nekk ci biiru méttee métti woo xam ne bu jaaxal docteur yëpp la bañ ne ko mënoo faju euh, dem jógee cëm réewam ba dem ci beneenu dëkk ngir bi faj ci foofa daje benn docteur boo xam ne yàlla dogal na jullit la kooku daf ko woorloo daf ko woorloo c'est-à-dire dugal ci béréb boo xam ne daf ne ko doo lekk doo naan lu mat lu jege ñaari fan ndax ëpp na vingt-quatre heures bi mu toogee diir bu yàggee noonu diir bi daal di tàmbali am yëngatu yu yëngoo yëngu yi ci nekk ba mu yàgg mu jekk rek am jaan su rëy rëy rëy di génne ci moom di jaan yooyu génne mu daal di am jàmm di docteur boobu di leeral loolu ci ab moom dafa gis ne lu bari ci jaani biir yi su fekkee ne doomu aadama ci mi ngi lekk sa naan jaan yooyu ci la ñuy ñoom li ñuy dundee dañuy nekk ci seen jàmm waaye nag su fekkee ne ñàkk lekk ñàkk naan am na jaan yooyu day xiif su xiisee nag kër kër yooyu nga def ci wut lu mu lekk kooku lay génne loolu mu ne koor dong moo ko mën waaye beneen élément bu ñu mën a jëfandikoo bu mu mën a doon ci yi ñuy fajoo loolu mënut a génne jaan yooyu te it nee na dana dem ba àgg foo xam ne ci xeetu kàttan moom jaan yooyu amul lenn loo xam ne lu ko man a rey la xanaa daal ñu xotti biiru waa ji suñ ko gisee ko wala mu ñàkk a lekk rek génnal boppam kon kooku njëriñ la boo ne ci yi nga xam ne koor dana ko jëriñ ci la kañ la ñuy wax ne nag nañ woor maanaam yas butul siyaam ci lan la koor di taxe ne kon suba dañu war a woor danañu mën xam ne weer koor dugg dina ñaari mbir yi si ci dell amee ñaari mbir yoo xam ne bu am danañ daal di xam ne kon weeru koor ak si na mbir ma ci jëkk mooy ñu gis weer wa toog nañ ba bisu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Saabaan muy li ñuy tudde aw baraxlu muy daje guddi fanweeri fanweereelu guddi ca weeru woowa ñu seen xewte la kon kooku dañuy daal di war a xam ne ramadan dugg si na su ci suba sax dañuy war a woor moo tax borom bi ne faman shahida minkum dahra falyasumhu loolu mooy su ngeen gisee weer wa rek woor leen yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ida raaytum al hilala xasuumu xadis la boo xam ne muttafaqun alayhi bu ngeen gisee teerute la rek nee na na ngeen dal di woor moo xam nag gis boobu benn jullit moo ko wala keneen moo ko gis jot li ko ko lañ koy sart daal ci ka mooy na nekk ab na nekk koo xam ne mu kallaf la koor jot na ci moom nekk ku amum xel du ku defewul di itam koo xam ne kuñ wóolu la ci ab xabaaram wóolu ko ci kóoluteem ndax xam nañ ne wax dëgg dëgg la wóolu ko it ci kaw ne bëtam am na kàttanu war a mën a gis weer waaye nag catholique kat ku néew ay néew gis la ba noppi julli gi kenn gisut weer yi mu xëy ko moom doomu dañuy xam ne kon gisut weer yi ndax gisam matéwu ko ñu ngi nettali ne Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mas nañu seen weer ba fekk booba jege na téeméeri at xam ne ku guddoon fan la mu ne seen weer bi moom dong jullit yëpp xool-xool kenn ko ku ñuy wax Sharik ibn Abdullah al-Qadi mu ñëw ba tolloog ay xefam xefi Anas ibn Malik radiyallahu anhu daal di koy raayeg loxoom tëral xef yi ne ko xoolaatal mu xool xool xool gisul dara mu ne dafa am benn kawar bu weex boo xam ne ci di jaawu xet gi la nekkoon bi mu xoolee moom lay seen mu weex xam nga bu jegee bët bi day mel ne lu rëy mu jàpp ne weer wi la seen sa teg nekkati lim seen booba du weer la kon faw day doon koo xam ne kuy wóolu la ci wàllu kóolu seen day doon itam koo xam ne kuy wóolu la ci ak gisam ne gis ba mate na ko jëlee nañ ci Abdullahi ibn Abbas radiallahu anhuma mu ne mas nañoo toog am benn kaw kaw bu dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di ne ko man day seen naa weer wax lam ci jublu mooy weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di koy laaj ndax yow da nga seede ne yàlla dong mooy benn buur c'est-à-dire ndax gëm nga laa ilaha illallah mu ne waaw mu ne ko ndax gëm nga ne Muhammad mooy yonent yàlla mu ne ko waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax Bilaal ne ko kon yéeneel nit ñi nga yëgal leen ne nañu woor ëllëg kon li ñuy tàtt foofu mooy jullit bi war naa doon jullit boo xam ne euh, ku gëm yàlla ku gëm ak yonentam la war doon itam ku moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëgle loolu loolu doon xadis boo xam ne bu la kon daal li ci kon mooy gis weer ñaareel bi ci yi nga xam ne mën na si si sukkandiku ba woor moo di eh, weeru baraxlu wa mat fanweeri fan bu matee fanweeri fan bu ci suba saa rek koor daaw lay dox ndaxte aw weer ci lislaam du ëpp mukk fanweeri fan fu mu matee fanweeri fan rek koor lislaam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in radiya alaykum fa akmilu iddata shaaban talatin mu ne na ngeen woor ngir te teg ko ci kaw gis weer bi ñu leen di wari it teg leen ko ci kaw gis weer muuru weer bi dafa muuru ba jëkku leen ko kon mott li leen weeru saabaan muy weeru baraxlu ba mat fanweeri fan ngeen door a woor saxat moom lañ gis ci ay teg ay yoo xam ne ñu ngi jóge sunna dafa doon yàq yoo xam ne jullit yi ci lañ daan sukkandiku di woor diirub ba suñ borom tabaraka wa taala waralee koor ci xeetu lislaam ba léegi kon mën nañoo wax ne sukkandiku bi dagal ci gis weer mooy yooyu nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala joxe muy séentu weer wa wala nga matal weer wa fanweeri fan waaye ma ne sa sukkandiku ci ay microscope yoo xam ne da nga ciy mu di la won lu sori di jegeel lu sori wala ngay sukkandiku ci lu aju ci wàllu li ñuy tudde fëlëg mën a defar ay calendrier yoo xam ne da ngay wax ci tàngam bu jotee rek loolu mooy premier ci weeru koor bu boobaa nañu woor kon yooyu mën a tuddee sukkandiku mën a tuddee sukkandiku it nag ci génn danañ tuddee sukkandiku ci génn am na lu xaw a doy waa foofu alxaafidul iraqi yi dañ ko ñett ni ci benn téere bu ñu wax farqu tahrib mu ne borom xam-xam bu ñuy wax alxaadi Xuseyn mu bokk ci borom xam-xam yi njërum al imam Shafii a toog gis buñ doon séentu weeru koor nee na am benn waay bu daal di ñëw ko man gis naa yonent bi sallallahu alayhi naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ma ne ma guddi tey jii ci ramadan la guddi tey jii ci la weer wi di feeñ nee na bi mu ko waxee alqaadi Xuseyn daal di ne ko kooku ne moom nga ci jël bi mu wax la ne la tey ci góor gi la bokk kooku ci ay naraw nga ko gis nee nga kooku saxaaba yi ñoom gis nañ ko ci lu dul ay naraw cest à dund la moom bëccëg ne la wuñ def ñu dara mu ne leen sooboo li ru'yati yi waax si mu ne leen woon lan su ngeen di woor na fekk da ngeen di gis ci seen i bët su ngeen di doo gis i kon loolee mu waxoon ña doon dund ak moom ne la wuñ def dara mu wax leen loolu lañ toxal moo gën a wér moom leen gis ci biir gën kon dama seet ci weer wa rek boo ko gisee ñu woo boo ko gisut ñu seet leneen kon mën nañoo tudd ci ñeenti régal yu gàtt bala ñoo taxaw njël julli a xam ne ci mbir moomu la aju moo di ne laa yajuusu siyaam illa bi yaqini wala iftaar illa bi yaqini ruya aw yaqini kamaali shahri salaat bi daganul mukk ñuy woor wala ñuy dog lu dul dañ ko teg ci kaw li ñu tuddee yaqin maanaam kóolu ci lu wér teng moo xam lu wér teng ne gis nañu weer wi la wala lu wér teng ne weer wi mat na fanweeri fan ñaareel ash-shahrul islami laa yanqusu an tis'atin wa ishrina yawma wala yazidu ala talatina yawma weer ci l'islam du manqué ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñeent amul amul ci weerul islam waaye du ëpp itam fanweeri fan kooku mooy ñaareelu règle ñetteel bi yajibu taraa'iyu l-hilaal laylata salaatin wa yaxrumu tarku dalika lil xisaab al falaki war na ci jullit yëpp buñ demee ba ne tey la guddi fanweer c'est-à-dire dugub ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mooy guddi fanweer guddi googu war na ci jullit yi ñu séentu weer wi te bañ a sukkandiku ci calendrier wala ñuy sukkandiku ci lenn loo xam ne bokkut ak séentu ñeenteel ba laa yasiqu siyaamu yow mi sakk nit bu ñuy picc sàkk naan si koor la wala bokkul si koor nga ne rek naa ko woor daal année temps bu ci bokkee baax na bu ci bokkul baax loolu daganul yaqiin si ngay tegu moo tax xadiisu Ammaar ibn Yaasir radiyallahu taala anhu nee na man saama al yawma alladi yusakku fiihi faqad asa abal qaasim ku woor bis bi nga xam ne dañuy picc sàkk naan si ramadan la bokk wala bokk si nee na kooku mooy nga abul qaasim bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ab xadis la boo xam ne bu wér la kon tomb biñ toll moo di hal yumkinu tawxidu siyaam bayn al muslimin ndax mënees naa dem ba jullit yëpp ci àdduna ñuy bokk di woorandoo di waayal di woorandoo ci tomb boobu lan toll muy tomb boo xam ne bu tuuti wut la boo xam ne xëy na moom dong waroon naa mën a doon aw waxtaan waaye rek suñ kan gàttal ñu gàttal ci ay gàttal yoo xam ne bu ko mbokk yi dégloo bu baax jombul danañ ci jóge am lu ñu baax incha li ñuy tàmbalee mooy yëg ne li ñuy wax ixtilaaful masaane muy ay tànkte tànkte jant yu wuute tànkte jant yu wuute gi mu wuute mbir la moo xam ne mu ñu gis la gis ko sariya itam nangu ko kenn werantewul ne foo mën a nekk fu ne ci àdduna réew ma fenkub réew ma nga nekk rek fa la jant bi njëkk a fenke waa soowu door koo gis kon fenk lay njëkk a fenk na léeg-léeg ay diggante ay région yoo xam ne sax mu nekk nawet baa lor baag lor bi baag jooroon la lenn lu ci ne day am waxtu woo xam ne ca la jant bi ca la bëccëg bi di a am waxtu woo xam ne ca la guddi ga di gën a gudde guddi maanaam guddi ak bëccëg daf koy wuute léeg-léeg ñu tolloo léeg-léeg ñu lool léeg-léeg guddi gi gudd lool bëccëg bi gàtt lool léeg-léeg bi yàgg lool guddi gi gàtt lool moo tax loolu bokk ci kéemaani suñu borom tabaraka wa inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la ayatin li ulil albab yàlla moo wax foofu mu ne bokk bind gi sunu borom tabaraka wa taala bind asamaan ak suuf di wóotale itam guddi gi ak bëccëg lii di gàtt lii di gudd nee na kooku ay téemaane ngi ci ñaari képp koo xam ne ñu ngi xalaat di jëfandikoo xelam wuute gi nga xam ne mataali ak yi muy fenk seen jant mi ñu koy wuute loolu luñ seetlu ci waxtu julli yi la kon mën nañoo wax ne ci waxtu julli yi defe naa ne jullit yi amuñu werante ci ne jullit yëpp mënuñoo bokk benn wax woo xam ne ci la ñuy bokk di julli mënuñoo bokk sax genn julli goo xam ne dañ koy jullee noonu ñoom yëpp li dégg seen i dëkkuwaay ma ngay sore waxtu day jot ci béréb am béréb boo xam ne waxtu wa jotagul jamono yi nga xam ne dem nañ bay dund ci wàllu ngeen di déglu ay rajo di seetaan ay télévision xam ne day doon direct da nga di gis ne léeg-léeg ñun fii ci Sénégal dañuy nekk ci waxtu ci bëccëg trois heures boo ubbee bi seetaan ci weeru koor Makka lu ca tegu rek nga gis nit di julli tamit yow nga doog a sa koor ba ñetti waxtu wala ñetti waxtu genn wàll nga door a mën a dog sa koor te loolu lépp bind waxtu la kon uyoo wala wuute wala sorente xam ne am na ci cinq seen jant yi kooku amul benn werante loolu sax sori na boo demoon ci penku réew mi rek foofa la ci jëkk a ci fii ci tawu réew mi ñu fii ci tawu ñoom ñooy mujj julli timis waxtu julli yëpp ñoo koy mujj julli même bu dee fajar ñu ngi jëkk a joxe te ñu ci penku bu ca kanamee mu door a jot ci ñi nga xam ne ñoo ne ci taw kon juyoo boobu lu mun te ñàkk la ci waxtu julli yi ci béréb yi nga xam ne fajar lu mun te ñàkk la itam ci koor wante nag ci koor dafa gën a yàq lu tax mooy waxtu julli yi dañoo gàtt diggante waxtu ak waxtu julli dafa jege loolu moo tax muy amal jeexital ci diggante béréb yi wut lool waaye koor bëccëg la bépp bëccëg bépp kon jeexital boobu dana feeñ ci koor waaye feeñ bu la ciy feeñ kañ lay mën jeexital mooy saa bu diggante ba paree ba nga xam ne bëccëgu ñële mooy guddi ñii guddi ñële mooy bëccëgu ñii maanaam diwloo nañ ba bokkatuñ ba bëccëg ak guddi su boobaa mel na ne su doon ci julli gën wax bi bokkatuñ waxtu julli xaw ma ndax wax bi leer kon mën nañoo wax ne jullit yi mënees na leen a benn le ci koor benn le leen ci kori li fekk seeni dëkkuwaay sorente wut ci wàllu waxtu loo xam ne dem na ba àgg ci juróom-ñetti heure jëm kaw su ko dee ëpp loolu am na waxtu yu jot yoo xam ne guddi la bëccëg ba du moo tax borom xam-xam bu ñuy wax Cheikh Abou Bakar al-Jazairi mu ne manees naa benn ne koor jullit yi ak seen koor yi ci ñaari mbir ba ci des mu ne mooy ñu liggéey benn calendrier boo xam ne dañ ci wone ne weeru koor bi sàngam lay tàmbali séddale ko jullit yëpp bu jotee ñu woor wala bu jotee ñu wari waaye mu teg ne loolu moom wéeru l'islam it daganalu ko beneen ba ca mu ne mooy ñu seet ak gouvernement ba xam ne moom la yàlla dogal mu nekk fa Makka ak Madina nee na ñu tont ko ne te yàlla dogal la yàlla dogal nee na moo di Makka ak Madina ñoo nekk ci digg àdduna mu ne ñu tont ñooñu ne leen jël xabaar yi weer feeñu weer wi ci àdduna ñu di ko jot li ci téléphone wala ci wàllu ci wàllu rajo jamono yi muy wax lii mi ngi nekk euh, mille quatre cent quatre maanaam mille neuf cent quatre-vingt-quatre la doon wax wax jooju xëy na yeneen développement yi am gannaaw bi ci technologie bi amul woon ñett yooyu rek ak rajo waaye am na yeneen yu am mu ne su loolu amee suñ jotee xabaar yooyu jot li ko jullit yi ci àdduna yëpp ñoom itam ci moyen yooyu di amee benn xabaar bu mu ne ñëpp ñoo xam ne ak guddi gi ñuy guddi gi ñële comme ñu naan a ña dëkk Amérique ak ña dëkk ca penku Asie ñooñu xam ngeen ne bu ñu nekk ci bëccëg ña ne dafa nekk ci guddi bokk di wooraloo mënuñoo wareeloo waaye ñu àggul foofu mu ne suñ seetalee euh, xabaar yooyu su leen joxee ñooñu mën nañoo daal di woorandoo mën nañoo wareendoo itam kon léegi jamono yi nga xam ne dem nañ ñun ba yëf yi gën a jëmaat kanam dem nañ ba télévision bi da lay wan loo xam ne mi ngi am ci saa nga di ko seetaan foo xam ne sa digganteeg moom kenn xamul nu mu toll ak toyawaay dem ba la ñuy tuddee internet am nga xam ne mën nañu wax ne na bépp daf koo def mu doon lu mel ne ab ab xayma bu ndaw ab xayma lañu daan wax waaye dafa mujj mel ne ab xayma benn tànk bu ndaw boo xam ne lii daw ci àdduna yu bare bari wala la ca am solo mën ngaa toog ci sa néeg di ko xam kon mooy yu mel noonu su demee ba am développement bi àgg ci doomu aadama bi mën naa toog fii di xam lay xew ca Màkka wala muy xam la xew ca Indonésie wala ca Philippine wala la gën a bari foofa kon yëpp yi mën nañoo wax ne euh, am na changement bu ci am boo xam ne jullit yi mën nañ fi jëriñoo ci lu mel noonu waaye nag loolu mi ngi doon am su fekkoon ne gouvernement yi jullit yi ci jëli boppam jël nañ loolu muy seen programme ñuy fexe ba coordonné seen diggante ñoom amal woorandoo boobu ak wareendoo boobu waaye nag dafa mel ne loolu ba léegi kon masala mooy su fekkee ne ëpp ci gouvernement yi nga xam ne ñooy àtte jullit jëluñu sharia ak l'islam mu doon da leen di àtte te itam jëluñu mu doon seen mbir waaye dañ ko bàyyi noonu rek bàyyi ko population jullit yi te fekk la jaatu woon kon mooy njabootu jullit yi ñoom ñu fexe ba dellale seen bopp ci réew mu nekk ñu fexe ba tuubal bi ñu doon ñenn ñoo xam ne xëy na genn kàddu la ñuy déglu muy kàddu lislaam man di woorandoo man di wareendoo yor benn baat wante suñ demee ba lu mel noonu amul lu mel ne li ñu dund moom nga xam ne tàqalikoo gi àgg na ci da ngay dem ba ci benn dëkk léegi sax kenn dëkk léegi sax ci biir kër ñenn ñi woor ñu ci dëkk wóoruñu wala ministre di war ñu ci des wëriwul ci kaw teg ko ci ne kenn ku nekk dafa am ndigal looy déglu loo xam ne su la joxee dina wooral nga woor su la ne wari nga wari suñ demee ba jiw am noo mel noonu am nga xam ne gouvernement taxawalatul l'islam ci anamu ne di joxe ndigal lu muy war a ko wari def ko muy programme dem ba jullit seen jëli bopp bennoowul kon foofu laaj mooy benn jullit bi nga xam ne moom dafa bëgg a dund diineen bëgg a jaar ci lislaam bëgg a tënku ci li ko alquran ak sunna ne defal lii kooku nu muy def ci woor ak woy ak ñu tàmbalee mooy sun borom tabaraka wa taala dafa wax ne faman shahida minkum shahra falyasum minkum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tuumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yàlla dafa wax ko mu ne su ngeen gisee weer bi woor leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne su ngeen gisee weer bi woor leen bu leen woy ñan la yàlla di waxal boobu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit bi yëpp la ñuy waxal jullit bi yëpp la sunu borom tabaraka wa taala di waxal foofu néewul yéen waa réew sàngam néewul yéen ñu des ci fenn wala yéen ñu des ci taw wante yéen jullit fu ngeen gise weer wi woor leen fu ngeen gise weeru kor yi wori leen fu doomu aadama gise weer ci kaw suuf te fekk diggante ba soreewut soreeg bëccëg ba guddi ga wuute xabaar ba jot jeneen doomu aadama ci kaw suuf yoo xam ne diggante ba soriwul noonu kooku kon war na ci ka xabaar bi jot mu daal di woor bu dee koy war na mu woor ci gën a dëgëral loolu moo di ci seenu doxalin ci seenu bu yàgg ba léegi rawatina ci jamono yàgg dañu daan sukkandiku ci xëjaaj yi nga xam ne ñooy ñëw di aj ci màggal su fekkee ne kenn jóge na ci réew mu toj te fekk gisoon na foofu weeru xabaar yi gis yooyu jullit yi daanañ ko jël ngir man see xam bisu arafa te fekk bokk ñoom suñu jóge loolu borom xam-xam yi mas ñu ko saxal seen biir téere mais noonu lañ daan doxale ñaareelu lii gën a dëgëral loolu suñ ko wéral moo di noonu su fekkoon ne dana bëgg ne mbir mi def seen ci meen mu nekk ñoom ñu fexe ba ñuy war a ba waree loolu ñoom loolu jublu ci réew kon dañoo bëgg a wax ne frontières yi lañ bëgg a wax fa Sénégal yam ñu ne kon waa Sénégal yëpp nañu woonandoo bu dee waa Mauritanie fa Mauritanie yam nañu woonandoo ñoom ñëpp fa Mali yam ila axiri loolu lan la ñuy indi si problème da nga gis lu kéemaane mooy da nga gis kon ca dëkk ci frontières yi ca penku muy woonandoo ci dëkk ci frontières yi ci kaw te fekk comme ci réew nga xam ne boo demee seen diggante ay fukki mètre ñaar fukki mètre la comme tàbbi ci meneen réew ñoo ngi topp seenum réew ñii gàttaandoo ñee nekk fee ñi nekk fi ñii séenante ñenn ñu woor ñu ci def wóor ñu loolu fan lay demee lu mel noonu moom la ibnu taymi di dindi ne laysa haada min diinil muslimin lu mel noonu diine ji xamuñu mu ta bokk seen diine ko ñu wax foofu mu ne moom ibnu taymi mu ne fa baabitu anna madaara haada al amr ala al bulugi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam suumu li ru'yatihi faman balagahu annahu ruya tabata fi xaqihi min gayri taxdidin bi maqasatin asla mu ne mbir mi fan la aju lan moo koy réglementé moo di foo yëgee ne weer wi jot si weer wi feeñ na ci xabaar boo xam ne xabaar bu wér la mu jot la nee na kooku da lay daal di war nga woor bu dee kori da lay daal di war nga wori ci lu dul nag ñu koy jiima fixé ci ne diggante du ko tolloo du tollu lu dul rek li ma leen joxoon mu di guddi ñeenti bëccëg nii a am kon li am solo foofu mooy xabaar bi ndax mën naa agsi wala mun nga agsi suñ demee may may nu nag mu mën a agsi nga xam ne su ko ñee gisee ci saa si mën na loo xam ne feeñ na kon bu boobaa la jaadu bi jullit bi nga xam ne day dund ci biir tàqali ko mel noonu la jaadu mooy mu tukkal ci lu mel noonu woo woo woo kon mën nañoo wax ne jullit dañ jàppoon am na ci jullit boo xam ne am na moyen yoo xam ne mën na cee xamee ne weeru feeñ na ca Màkka wala feeñ na ca Indonésie wala feeñ na ca feneen te ñam dëkkal ànduñu ci loolu mu gis ko moom dong kooku ak atteem moom atte du gis weer wi moom dong ba noppi gëmuñu ko loolu nag xam-xam lislaam dëpp nañ ko bu yàgg mu di suñ demoon ba mu yàgg am xam ne ci biir mbooloo mi weer wi mu leer ko ne moom weer la gis waaye joxe na xabaar bi kenn gëmu ko ndax xëy na am na kuñ teg ñàkk gaa gëm xëy na wóoluwuñ ko woon dafa nañ ne dox waaye moom leer na fan gis na weer foofu lu muy def borom xam-xam yi am na ñetti wax yuñ ci wax li ci njëkk mooy bu dee koor na woor bu dee kori na wori waaye nag na ko def secret bu ko déclaré moom dong loolu mooy njërum al imam Shaafi'i noonu la ko nee na la def lam gis seen bëggam waaye nag bu mu ko manifesté ci nit ñi waxu ñaareel moo di bu dee koor faj na woor moom dong mais bu dee kori nag nga xaaral nit ñi dañuy wari mu waree ndoog ñoom loolu mooy di gën a siiw ci njërum Hanifa ak Malik ak Ahmad ibn Hanbal te it loolu moo gën a feeñ ci koo xam ne si amul kenn ku mu ànd lool ku mu dogal lool parce que léegi jenn jëmm dong du génn dem lal ab jaram te tey ci ma ci julli julli korite moom dong bu noppee xot ba xot ba am delluwaat këram loolu mënta ne ñetteelu wax bi moo di nangoo ànd ak nit ñi bu ñu wari nit na wari ànd ak nit ñi maanaam bu mu beru def ci lenn loolu ibnu taymiya nee na wa hada azharul aqwal mu ne mooy wax bi ci gën a teey ngir yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne suumu sawmukum yawma tasuumuun wa fitrakum yawma tuftiruun seen koor daal mooy gis ba mbooloo ma di woor mu seen koor it mooy gis bu mbooloo ma di wori xadis boobu xadis bu wér la boo xam ne Tirmisi moo ko sawat ci ab sanad boo xam ne xasan la Tirmisi bi andi xadis boobu ba àggal mu ne lenn ci borom xam-xam yi ni ñu firee xadis bi moo di orga ak koriga gëwér mooy di ànd ak mbooloo ma mooy di nga xam ne dañ ko defal wax ak mbooloom nit ñi a dëgëral lool ci wet moo di ne borom xam-xam yi amuñu ak jooyoo ci ne bu fekkoon ne nit ki gis na weer weeru tabaski moom dong te fekk na ko war a aji jooyoowuñ ci ne yenn jëmm jooju dong du bàyyi doomu aadama yi dem taxaw arabu moom dong du leen ko bàyyi bàyyi ujaaj yëpp moom dem di sànni jawratul aqaba moom dong du leen fa bàyyi ñoom ñëpp dem di leen di ne tey la dëkk ci te fekk gis ba mu jàpp kooku la du nit mu leen moom dong kon la am mooy yooyu yëpp nam ko gisoon weer wi mu boo xam moom dong moo ko gisit du tee dañ defandoo yooyu yëpp ci jullit kon loolu juyowuñ li ñu juyoo nag koor li gën a bari ci borom xam-xam ñu ne mu jox atte koor atte li nga xam ne moom la tëbët ci moom la tëbët ci yor moo tax Ahmad ibn Hanbal ci benn riwaayaam mu ne yasuumu maa al imaami wa jamaati almuslimina bi sahwi wal ghayb maanaam kuy woor moom jëmm jooju nga xam ne dafa gis weer moom dong na woor woorandoo ak mbooloom jullit ñi ak seen imaam en tant que imaam la ñuy wax loolu ma fekke ne lii ñu wax lañ topp moom yëpp mooy digle ñuy woor mooy digle ñuy wari wala jamaatul muslimin boo xam ne yëg nañ ne lii mooy mbooloom jullit ñi ci seenu bari ak ci seenu takku ak ci seenu dëggu kon day war ci moom ñu warandoo di wareendoo su fekkoon ne gis na weer yi moom dong it kon day war a ànd si ak ñooñu waaye nag su fekkee jullit yëpp fàttali ko nañ doon ay kuréel bu dee kuréel waxee ba ca des du ko gëm bu dee wootee si lii ba ca des du ko wuñu seen kàddu ñekkatul genn kàddu kon su boobaa la fa def mooy jullit bu xëy ci sa diine nga seet xabaaru bu la jot bu mën a doon ñoo xam ne sa xel dal na ci ñoom nga sukkandiku ca loola bu boobaa loolu su fekkee xabaar ba ci ñoom jógee ñooñu ñëw yow ñoo tolloo guddi ak bëccëg maanaam seen guddi ak seen bëccëg duggante la su ay mbooloo yu néew lañ. ak mbooloo néew a néew a néew ci biir aw xeet boo xam ne ñoom dong ñoo yor xalaat boobu ñoom dong ñoo mel noonu lenn ci borom xam-xam yi ubbee nañ ne su fekkee ne ña ngay woor nañ woor tamit yàlla mañ caa waxante su fekkee ña ngay wari nañu wari gis boobu buñ ko woor wante nag nañu yeexe julli ga ba ca bis ba mbooloom julli yëpp di julli su fekkee am na bis boo xam ne ca mbooloom julli ñu di julli ñu jullee ndoo ak ñoom loolu bokk na ci ñu ko taxal te Abu Bakar Jaabir loolu moo wax nag ne eh, sukkandiku ci xabaaru bi moo di su fekkee ne xabaar bi jot nga la ci waxtu woo xam ne mën ngaa jàpp loolu mooy mboolem mu xaqiqoon borom xam-xam islam ci loolu lañ sukkandiku bokk na ci ibnu taymiya sawkaani sabir xasan xaan xaan cheikh naasirul albani moom sax nee na loolu mooy di wér li nga xam ne lu dul moom mënta wér xabaar bi fu mu la jotee ci waxtu woo xam ne jàpp wér tuwul da ngay jàpp ñi nga xam ne nag dañoo sukkandiku ne waa réew mu nekk dañoo war a am seen gisu bopp ñu ngi sukkandiku ci benn asar boo xam ne su ñuy wax Abu Kurayb mu doon ndaw lu nekkoon ci kër Abdullah ibn Abbas moo wax ne Umul Fadl daf koo mas a yónni Saam mu jóge Madina war a faa fekk Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu taala anhuma nee na ma dem Saam ba ma doxee aajoom ba àggal weeru ramadan daal di feeñ te fekk maa nga nekk sàmm ma gis weer wa guddig ajuma ngoonu ajuma ma gis weer wa ba loola weesoo ma ñibbi si madina fi axiri sax te mujj weeru koor ma ñëw ak si madina abdulahi ibne abbas radiallahu taala anhuma nee na mu daal di may laaj mu ne ma kañ ngeen gis weer wa yéen ma ne ko nun de guddig ajuma lan ko ci tool mu ne ma yow gis nga ko mu ne ko waaw waaw nit ñi nañ ko woor ibn Abi Sufyan itam woor na Abdullah ibn Abbas ne ko ah nun day guddi gaaw lan ko gis yéen da ngeen ko gis ajuma waaye moom gaaw lan ko gis ko nag ñun li nuy man mooy dañuy continuer woor ba fa nuy matal fanweeri fan wala nu gis ko rek nee na ma ne ko ah waaw ndax gis gi Muawiya gis dalaa doyut nee na mu ne ma lii ma la wax moom laanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal woon xadis boobu muslim moo ko solo ak lenn ci borom sunna lii lalu yonente bi digal woon mooy wa aftiru li ru'yatihi li yonente bi sallallahu eh, di amul benn julloo bu am digganteem ak lii ñëw leen waxoon ne jullit bi mën naa sukkandiku ci koor yeneen mbokk jullitam yoo xam ne bokk la ñoom ay frontières yu mu nekk benn réew loolu bokk na ci ñi ko tax xiif Cheikh Nasir al Albani mi ngi wax ne mu ne xadiisu Abdullah ibnu Abbas bii ci lan jëm mooy koo xam ne dafa wooroon ci am réewam moom ci biir Ramadan mu yëg ne am na meneen réew moo xam ne ci toon nañ ko lu jiitu bis bi mu moom loolu ko tax a su boobaa nan la ñuy def dañuy woor ba gis weer wala ñu am fanweeri fan ñooñu ñu ci def ñëpp ñoo yem su boobaa gisul ñeneen ña amul ci ñoom benn jeexital parce que yëguñu ko woon yëguñu ko woon waaye nag su fekkee yëg nga ko ci waxtu woo xam ne mën ngaa wum su boobaa da ngay wum su fekkee waxtu bone na mën nga koy woñ su boobaa da ngay woñ kon boobu amul ci woo diggante waxu Ibnu Abbas boobu ak beneen bu mën a doon waaye seet naa ko fekk ne kon nag li feeg réewi lislaam yi di mën a booloo li tey réew lislaam yi di mën a booloo mu ne kon liñ gis moom mooy benn koobal bu nekk dañoo war a woorandoo ak seenum réew di dogandoo ak seenum réew ngir ak tàqali ko bañ a am seen biir ñenn yi di wax ànd ak seenub état ñi ci def bañ a wax moo xam daa jiitu wala moo wala dafa tàqe mu ne loolu liñ ci jublu mooy ngir tàqalikoo di dox diggante jullit yi bañ a yokk loolu la ci loolu la ci jublu moo tax mu ne kenn ku ne daal day war ànd ak c'est vrai ma fekke ne loolu mu wax lu wér la lu mën a xellu la su fekkee ne ab peuple la boo xam ne dañoo bennoo seenu état doon boo xam ne bu ittewoo mbirum yàlla di ko seet di ko taxawal di ko dindi su boobaa loolu moo koy lu war a mën a nekk la waaye nag su fekkee peuple la boo xam ne dafa seetanikoo comme li kon su ñu sukkandiku foofu mënu faa nekk te am na leneen lu koy xaw a naqal loolu góor gi wax muy kenn ku nekk sukkandiku ca la sam réew def muy jafe-jafe bi ñu waxoon léegi ci mbirum frontière mu di léegi ay nit ñu jege ñoo xam ne duñu woorandoo di woorandoo nag ak ñeneen ñoo xam ne ñu soreendoo ak ñoom lañ comme ñe nekk ca dénkum réew ma di woorandoo ñu ca sow te fekk am na ñu jege lool ñoo xam ne lii laaj bi mooy rek am na benn frontière boo xam ne tubaaboo ko rëdd su ko defee noonu lañ kon ñooñu pour mbokk jullit yi fële na leen tubaab bi dëkkal pour ñu jotee ñoom benn kilomètre wala ñeneen ñi ci def ñu ne nañu war loolu ñoom ndax pour ñeneen mbokk jullit dañoo xam ne tubaab bi nee nañ noo bokk nee na réew mun nekk loolu doon ab boo xam ne ci lislaam lu ñuy mën a sukkandiku lay doon kon daal loolu mooy loo xam ne ma def na ko biir xamu boobu euh, su ko defee loolu ak gàttal la